yéenekaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la xëyadoo ñu door ko la wax ci di APR yéenekaay gi duñu xamale ne rek moom la taxawal na ko yéenekaay gi duñu xamale Moustapha Diakhaté nag di yëkkati kàddu ne bu ngeen gisee ñu taxawal li loolee daal dara wëralu ko lu dul jubbanti li nga xam ne rek moo di APR ak doxin wi nga xam ne daal moom lañ woon a maanaam daal gën a boole ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci APR yéenekaay gi Jaxate daal loolee mooy kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko de Vox Populi di ñu xamal ne ak lu mën di xew daal nga xam ne daal borom kàrang yu sens di ñu xamal ne taxawal na ni ko boo ko maas kër maanaam daal Moustapha yi nga xam ne daal yëkkati na ko ki xam ne daal moom lay woote wuute nag lool li nga xam ne rek moom la nekk mu ne taxawal na wa maanaam daal ngir li nga xam ne rek moo di courant Abdou Mbow mel ni ku ko dàqee ca bi te jamono jojee ñeneen ñoo xam ne ak dàqante amoon na seen diggante takk der yi wàllu lànk ñoo bañ yi gannaaw daal séddale flyers yi nga xam ne rek moom la ñu

lijjanti yéene kaay gi gis xamale mooy njiitu mi Macky gannaaw nag ba mu demee fi nga xam ne rek moo di Angleterre ca Londres yéene gi dañu xamale maanaam daal njiitu mi Macky gannaaw daal ba mu yëkkatee kàddu benn soxna boo xam ne daal moom la ñuy wax Mbayang Camara yëkkatee kàddu naan ko libéré gi Macky Sall yéene kaay gi duñu xamale moom Mbayang kay dañu koo tëj ci laa dóor ko laa maanaam daal dañu ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci Pastef ñoo doon yëkkati kàddu doon xam ne moo nekkee Pastef moo yëkkati kàddu doon wax loole naan libéré Guy Marius Sagna yéene gi dañu xamal ne ak lu ko ba ci yàmbaa mbaa nga def fi xuus benn kilo cocaïne ca Ziguinchor loo xam ne daanaka daal lu jege benn tonne ak lu teg loo xam ne rek jàpp nañ ko ci wàllu yàmbaa yéene gi dañu xamal gannaaw opération goo xam ne rek doon jamono ji nag ki nga xam ne rek teg nañu ko loxo ba ñu demee këram am na lu toll ci fukki ci yàmba yoo xam ne rek teg nañu ko loxo ci nekk boros nañu ko ba mu def téeméeri kilo yàmba peuple di xam ne loolee nag mi ngi tukkee ci opération boo xam ne maanaam daal seet wàllu dorog la ko doon amal Ziguinchor Tamba ak Mbour waaye nag teg loxo ci lu bëri ci wàllu yàmba ñu teg suñu loxo ci réew mi ko amal waaye nag jamono ñu tëj ko ngirug dundam moom Samba Sow moomee ak liggéey goo xam ne rek sañu koo bañ waaye nag lu toll ci genn wàllu milliard goo xam ne rek moom Samba Sow war na koo fay yéene gi duñu xamal loole nag bu fekkee nag maanaam daal doxal nañ ko Samba Sow dina yàqu ba faaw keneen ki ko yàqul fenn yéene bi de libération di ñu xamal ne Isabel dos Santos doomu njiiti réew bi nga xam ne rek moo nekkoon Angola jamono ci nekkal maanaam daal loxoom fépp